waaw euh, salaamaaleykum aadama euh, waaw loolu loolu neex na ci euh, di wax na tey ñoo ngi fii kër kër Daaro Thiam ah ci anniversaire bi nga xamante nii ne su ko yaataloon mu yaatu tey su woote woon ne damay anniversaire activité bu mag laa koy def ñëppay teew ndax déjà rek gis nga tey artistes yëpp daja nañ fi commençant par maas bu kooru biddéew njaay ah moor per bu xar jibi sëy ah at euh, lalla ah da cee rax sax faatu mbay kooru bidéew ah, ci moom laa bëgg a mujjee baay moodu euh, baay moodu bi nga xam ne wax dëgg yàlla euh, ku xam diggante daaro ak baay moodu xam ne du tey démb la ñun ñuy tourné yow ci kooru bidéew xam nañ Euh, saison bi yëpp ni la Baye Modou di gunge ah ci ci ay yére defe naa sax lool laaw na ba ci ñeneen ñi man mi mosoon naa man mi mosoon naa yaa ngi koy fàttali waaw maas mosoon na maas yaa tax sax ma mos bi nga ñamee loxo Baye Modou yow bi nga ko ñamee laala la euh, ma maas li nga sol dafa rafet nga ne ma Baye Modou la ca la fekk waaw nga ne ma nga ne ma dana la ñawal manela amna ci tisi ñaanu ma lola loola it nan ko ca motale manela amna jess neer bu rafet ñaanu ma ah waaye ñawal wa nono la nono la fekk may dem Pologne yaa koy koy ku fekk may dem Pologne barki yonent bi la nga ma ñawal la sol Pologne mom la sol ci ouverture festival du théâtre bu Pologne la nga ma ñawal ki malika ñew gis ma ne ma li nga sol dama ko bëgg bu ngeen ko tapé Sana Marzuki la tuddu bu ngeen ko tapé ci internet gis ko ba nii nii nii nii mi ngi may topp ci yére bi pour ma may ko mais ñun Sénégal cosaan cosaanoo nu sol yére di ko may koo xamut loola rek la bonn nu nag bonn nu nag <laughs> kon Baye Modou yow sa digganteeg Daaro dafa law ba ñun ñiy liggéey ak moom seen diggante parce que tey mun naa ne ñu bari buñ la buñ la xamee ci ci ci ci ñun milieu bi ak ci Sénégal moom bokk na ci parce que kàddoom toujours day wax baay Baye Modou Baye Modou toujours day wax Baye du moo fi jaar donc seen diggante yàlla na ci yàlla laf cat euh, njariñ bi ngay sàkku ci moom yàlla na ko ci gis moom it li muy sàkku ci yow yàlla na ko ci gis moom day wax ne valise yu la ma baay moo du di tegal du ma fay ñaw du ma fay tusi waaw du fay ñaw du ma fay tey nga ñëw indi gato bu wang waaw waaw gato bala de waaw moo Modou tay bi muy ñëw dalaa indil gato gu waŋ loola nag ah relation yu rafet moo koy maye kon Baye ñu ngi wax sa digganteeg daara suñu suñu jigéen la nun du fépp la nuy dem du fépp la nuy dem de gaa ñi xam nañ loolu du fépp la nuy dem mais yow sa bis ni ma ko waxee ci vidéo yi yow sa bis il faut ñu sacrifier wu ñëw ci ndax yow loo dégg xewle nañ ko doo xaar yow dem na ba léegi da ngaa wax ne Tonto Leyti bu ngeen amatee activité bul ma bind yow woo ma téléphone rek ma ñëw donc loolu ku rëyul moo koy wax ku rëyul moo koy wax kon ñu ngi lay ñaanal yàlla li ñëpp seede ci yow la ñuy seede mooy sa waajur bu jigéen bii nga jël teg ci sa bakkan bi bu ko wàcc mooy sa gàllaaj maa la ko wax ma wax la ko de xam nga fu ndaw ñi rawante ci ay waajur ku fi nekk na yóbbaale la conférence su nag ah conférence de waaw ku fi ne na yóbbaale lool de gis nga succès succès euh, succès bu ko nit maytuwul succès day day succès soo magul sa succès nga bàyyi sa succès mag la sa succès bu la magee rek waaw gis nga da ngay def le doo fekk succès da lay njuuy mais yow bi ñu ci tegu woo tegoo ba tey wàccoo parce que Euh, même au delà de ñun ñun mag yi ñuy fekk ci théâtre bi dañuy wax teraanga yi ñu fa yóbbu nday xadi wax na ma ko ci vidéo laay wax mag ñi dañuy wax yow teraanga yi ngay séq ak ñoom te ñoom defatuñ théâtre wala seen activité ci théâtre bareetul te loolu dañ la ciy encouragé bu baax bu ci dellu ginnaaw fekk mag bu daan théâtre ba retraité nga bett ko këram jox ko xaalis te te yàlla tax defoo ko ci Facebook wane woo ko ci ci fenn loolu def te yàlla tax la kon liñ lay wax rek mooy sa bu ci dellu ginnaaw sa waajur bu jigéen bii nga jël teg ci sa bakken bi gar ko ci mooy loo am bokk ak moom mooy sa gàllaaj bu ko bàyyi waaw loolooy sa gàllaaj de bu ko mooy sa gàllaaj mooy sama gàllaaj mooy bu keneen donc foofu rek la ndaw ñi rawantee kon yàlla na yàlla defar lépp euh, bari na artistes yu fi ñëw nag yoo xam ne miin nañ seen kanam ñenn ñi ci écran mais ñun ñëpp benn lañ cër la rek nga yëkkati kàddu gi na ma waxal cër la ndax yaay mag waxal mais mën na am nañu fi nekk sax te dàq maa wax li ma war a wax mais yow ku fi toog rek séq nga ak moom relation yu rafet ba ci ñëw ak ñëwul Ibrahima mbay soppe woo na ma léegi na ma booy li féeg yaa ngi fa na daaro dina xam ne maa ngi fa léegi bi may reer ci néegi kon loolu ay relation yu rafet moo koy maye ah defe naa ne suñu bëggee lim ñi fi nekk am na ñoo xam ne miinuñu kanam sama waa ji ñoo reerandoo reer bu siw ah, reer bu siw lii sa la reer nag xaw ko maa ngi koy soog gis xam ah, ah, reer bu siw lii sa la reer dafa dafa desal sax <laughs> man damaa mën a seel dafa desal reer bu siw maanaam caxat caxateewut ñam wa jaxasoowut palaat ba boo fa demaatee nit mën na caa reer te xam nga loolu dafa bokk ci discipline ah kan la la ilaha illa njaay njaay ah njaay njaay kaay nii njaay kaay nii njaay da ngay régime euh voilà mesdames et messieurs bonsoir Euh, bienvenue chez Darotiam, euh, notre chère sœur, pertinente de talent. Pertinente de talent. Vraiment, je, vais, euh, je voudrais continuer en français, mais... Euh, tu ne maîtrises pas la langue de Molière. Bon, bien, pourtant, bien sûr Bien sûr Bon, bon, bon, bon, bon j'ai tout maîtrisé. Parce que aussi, euh, il y a une connexion, il faut maîtriser le baril. Parce que de Nyenia que c'est un aussi, hein. Dembe alhamdulillah parce que aussi yéen bi bu ngent te mu ñaawo mais malheureusement bon ñaawalu leen ko mais Ndiaye ak biceps yi da ngay régime Wa biceps yi vous savez damay régime Fatou Mbay nak dafa ne ko xam ni dafa mën a yàqu der hein. c'est un gaspillage de peau c'est une une gaspillage de peau mais Ndiaye plat yi dama cee gis yap gis ci ginaar guñ lakk daaro li mu def ni tay bu ko defatee dina ci am bakkar. Hein. Parce que depuis Bobelegui, le petit coin, euh, personne n'arrive pas à me le montrer. Mais les grand, <laughs> euh, Daro. Ah, ah. na avons a doole sant yàlla. ndax baax beneen ñu que bëgg waaye na ci lool. Mhm. dafa Daro, artiste millionnaire nga milliardaire.